alhamdulillahi wa salla abada ala alladi bihi lana alhuda bada sayidina muhammadin wal ali wa sahbihi dawina walil wali waj'al kalami rashida wa murshida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida saddid lisani nawwir janani safi amani wa sid barai assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ñoo ngi sant yàlla tabaraka wa taala ni mu yellee ci jëmmam jiite te as njaamam lott ci lool di julli tey sëlmal ci sangum ñaari way ndijji bopp yi te mooy nit ak ginne sayidul kawnayni wattaqalayni walfariqayni min urbin wa min ajami sallallahu alayhi wa sallam di ñaan jàmmi yàlla ak xéewalam yàlla na ko yàlla sotti ci kawam moom mboolem ay ñooñam ak ay saxaabaam waaye di yeesal suñu pas-pas ak suñu jaayante ci sëñ tubaa xaadimu rasul di nuyoo nuyoob lislaam bi nga xam ne moom la ñu yàlla boole mooy nuyoo bi tàmbalee ci jàmm te jeexee ci barke mooy nuyoo bi nga xam ne moom la waa aljanna di nuyoo mooy nuyoo boobu nga xam ne moom la ñu yàlla boole te mooy asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu suñu nuyoo boobu suñu ziyaara boobu ñoo ngi ciy jiital borom ngëneel a Cheikh Mouhamadul Muntaqa di ko ñaanal yàlla yàggal ko yàlla wéral ko ba mottali mboolem ay naalam nay naal di yeggale tey naalaat di yeggale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 Baye Hassan Seck xalifa Canaba nuyoo boobu ak ziyaara boobu moom la ñuy jox Thierno Basir xalifa Maam Cheikh Omar nuyoo boobu ak ziyaara boobu lañuy ñuy jox jullit yépp mboolem téléspectateurs yi nga xam ne ñooy safoo di saxoo di topp seen télé Rewmi TV rawatina seen émission bu mag bi ñuy wax keppaaru mag ñi ngeen baaxoo ko am dimanche bu jot di ci baaxoo ànd ak seen mbokk sëñ Baara Mbàkke asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu seen émission keppaaru mag ñi dimanche bu jot ñu di ko amee fii ci réew mi TV ngeen di ko am ci canal 108 waaye man koo topp ci Rewmi FM 97.5 fii ci immeuble Alhaaji Mouhamed Lamine Baara lii Falilou xam naa niñ ko baaxoo defee dimanche bu jot buñ fi teewee fàttaliku waaye nafaraat kenn ci suñu mag ñi nga xam ne li yàlla yónni woon yonent bi aleyhi salaatu wa salaam ñoom ñooy ñi ñu ko jottali nafaraat seenu dund waaye nafaraat seeni jaar-jaar tey ñu jukkiwaat ci kenn incha allahu taala fas nga ko yéenee waxtaan yi waaye ma fas ko yéenee ànd ak sama mbokkum daara ah Cheikh Abou Madiane Souaïbou euh, Cissé euh, di borom xam-xam bu mag a mag a mag macha allah dëkk fii ci Dakar Cité Fadia di yëngu ci wàllu xam-xam xam-xamu lasraar waaye di ko leer ab xam-xam macha allah yal na yàlla barkeel ko maanaam sëñ Mor mbay Cissé da daan wax ne euh, dongab daara mënta mucc ci ñetti taayi mooy tijaara taalim ak tiryaq faawu day jàngale wala mu commerce wala mu yëngu ci wàllu ñaan moom si ñebu Madiyaana tànn na benn ci taa yooyu di ci yëngatu mooy tiriyaaq moom di wàllu ñaan wàllu lasraar suñ borom may ko ci xam-xam bu leer moom incha allahu taala moom lañ fa yéene àndal waxtaan wi waaye nag waxtaanee kan turandoom a Cheikh Abou Madiyaana bu Mbacké mi nga xam ne doomi xaadimu rasul la liggéey bu rëy boobu nga xam ne liggéeyal na ko lislaam dama ciy bañ a guddal damay jox sama mbokkum daara si Abu Madiana mu daal di nuyoo incha allahu taala ma dikk ci lubbul mawduu bi li nga xam ne moom la ñuy waxtaane tey sëñ Abu Madiana fal tatafaddal mashkura uh, alhamdulillahi alladi xalaqa samawati wal ard wa jaala sulumaati wan nuur summa alladina kafaru bi rabbihim yaadilun rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli hmm. mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu waaleykum salaam ñoo ngi lay nuyu bu baax sëñ Mouhamadul Amin Baara di la ziyaare bu baax waaye di jiital ci nuyoo bi ak ziyaare bi Cheikh Mouhamadul Muntaxa xalifatu kullu muridiya waaye di ziyaare bu baax mbooleem yeneen kilifa yi fi nekk yëpp mbooleem tarixa suuf yi fi nekk yëpp ñu ngi leen di ziyaara di ziyaara bu baax xadaratul malikiya di ziyaara bu baax xadaratul ya ak mbooleem suñ kilifa yu baax yi fi nekk yëpp mm-hmm. waaye di nuyu bu baax nag suñu sëriñ mm-hmm. suñu xalifa as seex ahmadou mbàkke sohaybu mm-hmm. ñoo ngi koy nuyu bu baax te di ko ziyaara Mm-hmm. di ko ñaanal suñu borom may ko gudd fan gaa na ko wér nuyu mbooleem rakkam yi topp ci ginnaawam yëpp mm-hmm. waaye naka noonu ñuy ziyaar bu baax sëñ Mouhamadan Bousso moom mi nga xam ne moo amee taxawaay ca daara ja mm-hmm. moom mi nga xam ne moom la sëñ Jean bu yëkkati woon daara ja teg ko ci ay loxoom boobu ba ak léegi it wax dëgg yàlla mu ciy taxaw kenn kàttanam boobu ba léegi it mu yóbbu liggéey fu kawe jortam ñoo ngi koy nuyu bu baax te di ko ziyaara waaye di ziyaara bu baax sëñ suñu sëriñ ba tey sëñ Baye Mbacke Jaxate ñoo ngi koy ziyaara bu baax Mhm. di ziyaara bu baax suñu yëboon ñaan ak mboolem waa kër suñu soxna bi fa nekk yëpp mboolem waa daara ji daal ñu ngi nuyu ñëpp di ziyaara ñëpp waaye naka noonu it ñuy ziyaara bu baax suñu waajur sëñ Hasan Cissé mhm. ak mboolem waa kër ga yëpp ndax mhm. ginnaaw yàlla lépp lu ne ci ñun rek moo ko def ci ñun ñoo koy ziyaara bu baax di ziyaara daal mboolem kuy topp keppaaru mag ñi di siyaara mboolem auditeur euh, émission bi waaye di siyaara bu baax ñu mboolem kuy topp rek euh, di télé bi di Rewmi TV. Mhm. ñu ngi koy nuyu bu baax di ko siyaara. baarakallah si yow Mariana nuyoo bi jotal na. Mhm. xam naa dañuy tënk rek. Mhm. Euh, am na solo lool. ki nga xam ne moom la ñuy waxtaanee mooy ki nga xam ne mooy doomi sëñ Touba ji nga xam ne moom la sëñ Touba. rafatale woon alquran. ñu koy wax Cheikh Abou Madiana. Soayib. Serigne Soayibu. moom Serigne Touba Xaadimu Rasul moom fan la ganee àdduna ñan ñooy ay way juróom ci tënk rek su ko defee ñu njëkkante ak waxtu yi insha allahu taala waaw kay euh, sëriñ bi kan mooy Serigne Souhaïbou day bu ñu ko dee wax moom mën nañ ne ku neex a xamle la ndax ci gàttal rek bu ñu waxee sëñ Souhaïbou mooy ki daan euh, yëngu ci al alxuraanul karim mooy ki nga xam ne it moo nekkal Serigne Touba ca la nga xam ne mënu mënu foo mënu ca woon nekkal boppam mm-hmm. kooku mooy Serigne Souhaïbou Euh, sëñ Sohaybu nag xam naa ne li gën a euh, li li li li buñ dee leeral ak càllalam mm-hmm. euh, xam naa buñ ci tuddee Cheikh Mouhamadou Cheikh Ahmadul Khadim rek ne mooy waajuram mu doy sëkk mm-hmm. ndax ci wàllu taarix dañuy wax ne mm-hmm. booy waxtaani kilifa dafa laaj ñett Mm-hmm. ba ca njëkk mooy nga dund ak kilifa ga mm-hmm. ñaareel ba ca des mooy kilifa ga dundam ñu bind ko ci ab téere mm-hmm. nga jànge ko fa wala benn benn ya nga xam ne dund nañoo kilifa ga ñu wax la ci ay jaar-jaaram mu mel ne nag bu mujj bii lañ jëfandikoo te mooy benn benn yi nga xam ne dund nañu sëriñ Souhaïbou ñoom ñooñu nettali ay ay ay jaar-jaaram ak ay ay ay ay nag waajuram bu góor mi ngi tudd Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul loolu moom bu ñu ko waxee rek doy na sëkk waaw bu ñu ko waxee rek doy na sëkk euh, bu ñu dee wax waajuram wu jigéen beneen nit mi ngi tudd soxna Mariama Jaxate mm-hmm. euh, sëriñ Sohaybu ak sëriñ Abdul Ahad mm-hmm. ñoo bokk lépp ñoo bokk waajur bu góor ñoo bokk it waajur bu jigéen mm-hmm. naka noonu yi soxna Mariama Jaxate it sëriñ Moodu Xassa mooy waajuram sëriñ Moodu Xassa bokk na ci mag ñi nga xam ne ñoo njëkk a euh, jébal bopp ñoo njëkk a jébal seen bopp sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul ndax moom sëriñ Moodu Xassa ci Mbàkke Kajoor la jébbaloo mm-hmm. bi mu jébbaloo it njabootam gépp it mm-hmm. day na jébbal day na jébbal ku tedd ki si Ahmadu Bamba Xaadimu Rasuul Xaadimu Rasuul mm-hmm. waaye naka noonu it eh, sëñ Moodu Asta it am na ay am na am na am na ay ak njaboot ka ca ka ca mag nag mooy sëñ Amsatu Jaxate sëñ Amsatu Jaxate yaakaar moo di ab taawam sëñ Abdourahmane Jaxate topp ca sëñ Balla Jaxate topp ca sëñ sëñ Mbàkke jaxate topp ca sëñ Alsaan jaxate topp ca mhm. ñooñ ñooy njaboot gu njaboot gu góor ñi mhm. buñ dee ñëw ci njaboot gu jigéen ji nag moom buñ ci tuddee soxna Mariama jaxate mhm. mii waajuru sëñ Abdoulahat ak sëñ Sohaybu ak soxna Fat jaxate mi nga xam ne mooy waajuru sëñ Saaliw ak soxna Assa jaxate ñooñu ñooy njaboot gu jigéen gi ki mu amoon nag ku tedd ki dafa teel a dafa teel a génn moom lañ moom la ñuy wax Cheikh Cheikh Abdoul Baaxi Cheikh Abdoul Baaxi ndeysaan soxna sa jaxate moo ko jur mm-hmm. waaye bu ñu dee xool soxna Marema jaxate waajuram wu jigéen mm-hmm. mi ngi tudd soxna ñang si la libaas soxna hmm. ñang sill soxna jéng sill soxna ñang sill mooy hmm. waajuru soxna mariama jaxate hmm. sëñ libaa silla di waajuram sëñ libaa silla jur ko sëñ libaa silla ak sëñ mañaaw silla ñoo bokk lépp ndeysaan ñoo bokk lépp sëñ mañaaw silla kaang ma yaakaar naa sëñ mañaaw silla waaw mu siiw mu ah, kaange ma <laughs> mu siiw mu kaange ma ci wala fay sëñ mbay jaxate sëñ musaa kee ñëw na ci lu bari la googu moom noonu la demee la ganee àdduna ak fan la ganee àdduna njaareem la ganee àdduna mi ngi gane àdduna it 1335. ci gàddaay gi ci gàddaay gi. Mhm. tombeek nag 26 juin 1917 ci atum miladiya muy atum mhm. nasaraan. waaye foofu la a jamono. ndeysaan suñu soxna nag njaareem la a jamono. Mhm. waaye bi muy gane jamono it. wax nañ ne mi ngi fekk sëriñ bi ci résidence surveillée. résidence surveillée fa la fekk ci la fekk sëriñ bi. wax nañ ne it bi mu gane àdduna it. sëriñ bi dafa yónni Cheikh Mouhamadou Lamine Diop Dagana. ngir mu jox ko aw tur. waaw Cheikh Mouhamadou Lamine Diop Dagana moom la yónni tuddee ko yonent yàlla Suhayb waaw tuddee ko yonent yàlla Suhayb hmm. naka noonu it sëriñ Suhayb it mi ngi hmm. gane àdduna it juróomi fan ci weeru koor hmm. waaw juróomi fan ci weeru koor la ganee la ci la ganee ci la ganee jamono naka noonu it wax nañ ne li ci gën a yéeme mooy bi mu ganee jamono rek sëriñ bi dafa wax ne li des ci bëccëg bi na ko na ko woor nga xam ne kon sëñ Suhayb bu eh, ku miin eh, weeru koor la ndax eh. bi mu ganee jamono rek sëñ bi dafa santaane ne li des ci bëccëg bi na ko woor nga xam ne bëccëg gi mu gënee àdduna mi ngoog la bokk ci weeru koor wi ci la bokk ci weeru koor wi waaye nag maanaam euh, tool bi mu doon yëngu it weer wi da ko da ko da ko da koo firndeel ndax kenn ko ne xam ne ne weeru koor ci lañ mhm. wàcce alquranul karim mhm. zahru ramadan alladi unzila fihi mhm. dafa doon ku ku ku yàlla waajal koo xam ne daal ku yàlla waajal la waaye wax nañ ne li ci gën a yéeme it moom sëriñ Souhaïbou bi mu ganee bi mu ganee jamono dafa tombeek sëriñ bi di taalif xas yi dak yaa xayra dayfin yaa xayra dayf yaakaar ñu bari bis bi wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiban bila adadi nga xam ne sëriñ sëriñ bi mu ngi tagg weeru koor ak di ko tatagal ak di wane cofeel gu mu am cofeel ci weer wii di weeru koor kon sëriñ Suhaybu noonu la gën a jamono barakallah am na solo lool sëriñ Abu Madiana dafa mel ne kon ci tënk rek doomi sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul la ak maam Mariama Jaxate nga xam ne woy juróom wu góor mm-hmm. wetu woy juróom wu góor ay kaang lañ mm-hmm. wetu woy juróom wu jigéen ay kaang lañ mm-hmm. ndax daanaka diggante njaxate ci la ak diggante mbàkke <laughs> moom diggante bii ku fa feeñ day mel ne li wolof yi di wax ne lu lu juddoo ci mu tàgg bu naawul jaaxali ay bokkam mooy kon teyit Euh, borom xam-xam yi borom mm-hmm. xam-xam yi science yi dañuy wax ne al insaan mm-hmm. ibnu bi atihi mm-hmm. mooy doomu aadama bu ci ne doomi environnement bi muy dund la mooy sëñ Soxaybu bi ci diggante ay way juróom yu góor ay kaang lañ way juróom yu jigéen ay kaang lañ ci diggante bi mu ganee àdduna mënuñoo séentu ci moom lu dul borom xam lay doon dëgg la mooy ci diggante bi mu ganee àdduna ñoom jàng ak jàngale lañ xamoon kon sëñ Soxaybu bu fan lañ ko jaarale ci wàllu jàng ak wàllu wut xam-xam ak yu demee noonu waaw euh, sëñ euh, sëñ bu mm-hmm. xam nga moom bi mu a jamono it foofu yi dana am leen lu ma fa leeral sax muy sëñ Souhaïbou bi mu gënee jamono mm-hmm. euh, maanaam bi mu amee lu tolloog attaqué weer mm-hmm. lu tollee ci nàmp rek ci la fi waajuram wu jigéen jógee mi soxna Mariama Jaxate nga xam ne bi fi waajuram wu jigéen jógee Mm-hmm. sëriñ bi dafa santaane ne nañ ko jox uh, soxna Xari Mbar Sill mm-hmm. soxna Xari Mbar Sill mooy waajuru sëriñ Abdou Samad Samad waaw ngir mm-hmm. ngir mu yeggale ab yaram waaye foofu it soxna ma soxna sëriñ soxna bu defee nuróo leeg Cheikh Mouhamadou Lamine Bara ndax Cheikh Mouhamadou Lamine Bara moom it bi fi soxna Aminata Lo di jógee ñu toll ci nàmp rek isaay soxna Awa Bousso lañ ko joxoon ñu ko sëñ bi santaane nañ ko jox soxna Awa Bousso kon sëñ soxna eh, soxna Mariama Jaxate ak soxna Aminata Lo dañoo bokk dañoo dañoo nuroo dañoo niroo mbir ndeysaan ndeysaan Euh, soxna ami soxna soxna soxna Mariama Jaxate mhm. mook soxna Aminata Lo nuroo gi nuroo mbir bokk na ci ñoom ñaat ñëpp kenn ku ci ne ñaari takk ndeer nga am ak sëriñ bi ndeysaan soxna Aminata Lo Cheikh Mouhamadou Amine Baare ak Cheikh Mouhamadou Moustapha ñaari euh, soxna Mariama sëriñ gën a yéeme mooy soxna Aminata Cheikh Mouhamadou Moustapha toog na xalifa ndeysaan waaye sëñ Mamadou Amine toogul xalifa waaye toogul xalifa na lu bare bari seetal loolu nga xool sëñ son yi bu sëñ Abdou Ahad toog na xalifa seetal waaye sëñ son bi toogul xalifa waaye moom bind na lu bare mulaaxasa bu am solo am solo loolu moom xam naa ni mu demee waaye musuma bàyyi xel ci mulaaxasa bi macha allah loolu ay mbir la solo loolu baraka ay mbir la waaye waaye la ca gën a yéeme sax mm-hmm. moom soxna Mariama bi mu fi jógee rek sëñ bi dafa santaane nañ ko nañ ko nañ ko yóbbu ca roon tànki Aminata Lo ndax ñoom ñaar ñoo bokk wàccu waay bokk wàccu waay gi léegi koy firndeel ndax ñoom ñaar ñëpp kenn ku ci nekk kenn ku ci nekk demal nga sëriñ bi barakallah soxna Aminata bi nga xamee ne sëñ bi maanaam borom moom soxla na ko mhm. soxna Aminata Lo moo taxaw ne ko bàyyil ma dem daagali sam liggéey waaye soxna Marema Jaxate it jëf na lu mel noonu mhm. moom soxna Marema loolu tax mhm. sëñ bi ne ñoom ñoo bokk wàcc waaye ndax dañoo wax ne soxna Marema euh, sëñ sëñ sëñ Mudassa dafa gént benn bis lu mel ne am riir ak ngelaw lu bari lu jógee asamaan mu gis soxna Marema taxaw mu mel ne lu jëm ci soxna Marema waaw mooy soxna sëñ bi taxaw mu mel ne lu jëm ci sëñ bi waaye mu mu xool mu mel ne dañoo randale jëmmi sëñ bi teg fa soxna Marema Eh, nga xam ne bi ngelaw li dalee ca soxna Marema gisatu ko mu nekk loolu sëñ bi ne ko bi ngelaw li dalee ci soxna Marema gisatu ma soxna Marema mhm. sëñ bi ne ko yow géntoo dañ laa woon demal nga nekkal ma fa ab diir bu gàtt rek la fa nekk soxna Marema wuyu ji borom waaye la ca gën a yéeme sëñ bi soxna bi mu génnee àdduna mhm. sëñ bi dafa bind ci suuf mhm. euh, daal di wax ne hiya fii jannatin wa nahar fii maa xaadi si defin inda malikin inda malikin muqtadir loolu la bind ci suuf <laughs> la ko jox leen ko ne leen denc waale leen ko ndeysaan kon loolu lu kii maa lu yéeme lu yéeme macha allah macha allah bu ñëw nag ci wàllu njàngam moom sëñ sonay bu mm-hmm. ku baax ki moo ko dalal boppam alxuraan mm-hmm. ku baax ki moo ko dalal mm-hmm. boppam alxuraan moo ko sëriñ abdul ahad ak sëriñ saalibu waaye bi bi bi nga xamee ne ku baax ki dalal na ko ba noppi it da ko jox uh, nijaayam sëñ am satu jaxate sëñ am satu waaw sëñ am satu la ko jox ndeysaan waaye wax na ne bi da ko caa tegal ne ko joxuma la sonay bu mii ngir moo uh-huh. ko jox ngir li ma def ci yow nga def ko moom kon ci la sëriñ amsatu nag daal di jële sëñ Sohaybu bi yóbbu ko ci daaree boppam ja mm-hmm. di ko jàngalal boppam nag ndeysaan di ko jàngalal boppam jàngal na ko ab diir mm-hmm. bi mu ko jàngalee ab diir nag mm-hmm. eh, sëñ ginnaaw sëñ amsatu moom amutoon jot ndax sëriñ bi da ko daan soxla lu baree la ko jëlee nag daal di koy jox sëñ Alsaan Jaxate sëñ Alsaan Jaxate mii nag bokkut ak sëñ Alsaan Jaxate mi nga xam ne eh, doomi rek kii la sëñ mii doomi sëñ jàmbar jaxate la ah. doomi sëñ jàmbar jaxate la sëñ Alsaan Jaxate mii moo doon jàngal sëñ Sohaybu bokkut ak bi amsatu baay Alassane Diakhaté moom moo ko doon jàngal boppam ndeysaan moo ko jàngal bam ba mu mokkal alxuraan mm-hmm. ba bind kaamil mm-hmm. waaye bi mi bi bind kaamil nag fekku fi ku baax ki ndeysaan moom suñu songe boobu moom suñu songe boobu na fi mm-hmm. ku baax ki jógee fi ndax euh, dañoo wax ne euh, suñu songe bu euh, mook mook mook mook mook sëñ Abdou Lahad ak sëñ Saliou ñoom ñoo ñoo ñoo mokkal alxuraan ñoo bindandoo kaamil ñoo bindandoo ñoom ñett ñu yow ñu ah, yóbbooloo seen kaamil dëgg la daa baaxoon naa am ngeen yóbbooloo seen seen kaamil daanay faral di mi ngoog ci dig mm-hmm. digal boobu nag ci la fi ci la fi ci la fi ku baax ki jógee mm-hmm. ñu jël kaamil yooyu nag jëb ko Cheikh Mamadou Moustapha waaye lu jiitu loolu nag mm-hmm. sëñ sëñ sëñ am satu ku baax ki léegi-léegi la ko daan wax ne ko àndal ak kenn ci gone yi te ñëw mhm. wax nañ ne am na yoon woo xam ne sëñ soxna bu la àndal mhm. mooy euh, xista bu siiw bi ngeen dégg mhm. ko sëñ sëñ bi yenee gaal gi ngir mu andil ko ko wax nañ ne da ko yan gaal gi ñoom ñett mook sëñ am satu ak sëñ soxna bi ak ku baax ñu kees gu ubbi rek jàll ci ka ca des njegee ba toog ba teg gaal gi nag ci la ko sëriñ bi waxee ne ko ndax xam nga xam nga xam nga lu waral ma yan la gaal gi mm-hmm. waaw mu ne ko nee na sëñ am su sax mu am mu àndu si mm-hmm. ginnaaw suñ soñ booba ci saayir mm-hmm. wax ak sëñ bi ay atam bariwul ay atam bariwul mu ne ko nee ko bëggoon nañu koo xam ci la ko waxee nag ne ko damaa bëgg boo ëllëgee nga wutuma ci alxuraan ndeysaan wax nañ ne foofa sax doon na wargaal di ko jox mhm. waaye nag fa la ko dénk-dénk yu baree bari ndax fa la ko waxee ne ko mhm. fa la ko dénkee ne ko bul toogati mukk te jubluwoo penku nga xam ne mhm. si soxna bu ñi miin ak dundam ñëpp daa gis na du toog mukk te jubluwul penku ca la ko dénkee it ne ko it sa sa bopp bu ko bàyyeeti muy sëq Mhm. nga xam ne si soin bu fukki fan. maanaam ñi yor njeeñ daal <laughs> nga xam ne fukki fan ak juróom yu jot yu ne daana wattu day wattu ndeysaan daana wattu mhm. waaye fa la ko fa la ko joxe it alliwooy xànjar ja alliwooy xànjar ji nga moo ko doon ci moom mhm. ba léegi nii ma nga fa ma nga ci kër kon loolu ay kimtaan la yoo xam ne suñu son bu kun waajal la am na solo am na solo baarakallah baarakallah sëñ Abou Madiana suñu son bu comme ni ma ko doon séentoo rek. Mm-hmm. maa ngi la koy wax ne noonu rek la man a demee. Mm-hmm. mooy olof yi dañuy léem ne lu tudd lu juddoo cim tàgg. Mm-hmm. bu naawul jaaxali ay bokkam. doomi sëñ tubaa moom alxuraan mooy mbiram. ci lu wér rawatina nag sëñ tubaa bàddil ko ci alxuraan mooy que ne. liggéeyloo ko. ne ko li tax ma lay liggéeyloo mooy damaa bëgg bu ëllëgee nga wutu ma ci. kon sëñ Soxay xam-xam la woon sëñ Hamsatu la ko bàyyam joxoon. sëñ Hamsatu jox ko sëñ Alhasan Jaxate. mokkal na alxuraan bind na kaamil. ci biir loolu maa ngi ziyaara bu baax a baax alxaaji Mahmoudan Buso ngi koy tudd léegi maa ngi koy ziyaar bu baax moo ko siñ sonay bu mm. man ci loxoom laa toqee man moo ma jàngal alxuraan moom mm. lañ ma jox mu jox ma rakkam sëñ Mor Bousso moo ma jàngal alxuraan mm. ci loxoom laa ko bindee ñetti yoon ci sa kanam waaye ci loxoom laa jàngee xam-xam ci loxoom laa jàngee Seexu Xaliil kon maa ngi koy sant bu baax a baax te di ko ñaanal amuñu fay ñun siñ sonay mm-hmm. ndax lii ko sëñ Tuubaa dénkoon muy alxuraanul karim ñun ci moom lañ ko xamee loolu loolu moom amuñu ci fayam mm-hmm. ñi ngi am fierté bu baax a baax ci di ko wax fuñ mën a toll de ñi ngi am fierté bu baax a baax a baax di ko tudd fuñ mën a toll mhm. di ko ñaanal bu baax a baax a baax ndax tuyaaba ji ko yàlla di koy ji ko yàlla di ko di ko ci fay mhm. di ziar bu baax suñu Baay Mbàkke ak mboolem mhm. ñi nga xam ne ñoo ñoo nekkoon kër Sëriñ bu ñun daan ñoom ñoo ñoo ñu daan teete ñun ñoom ñoo doonoon suñuy magi daara doonoon suñuy bàyyi daara doonoon suñuy nijaayi daara ñoo ngi leen sant bu baax te di leen ñaanal am na solo lool Sëriñ Abo Madiyaana ginnaaw Sëriñ Suhaybu ginnaaw bi mu jàngee alxuraan moom mhm. dafa noppi alxuraan rek toog jàngale mhm. wala daara def ay activité mhm. lu jiitu muy toog di jàngale alxuraan suñ noppee ci tënk rek ñu boole kook daara ji moom sëñ Chouaïbou bi kañ la ko sos ak lan mooy taarixam insha allah waaw euh, sëñ Chouaïbou bu bi mu bindee kaamil moo wax naa la léegi ne la moo sëñ Abdul Ahad ak mm. sëñ Saaliwu mm. ak ak sëñ Sohaybu ñoom ñett lañ ñoo jébbalandoo seen kaamil Cheikh Mouhamadou Moustapha mm-hmm. wax nañ ne sax bi sëñ Amsatu di leen jébbal di jébbal sëñ Moustapha kaamil yi mm-hmm. sëñ Moustapha dafa génne kaamilu Cheikh Abdul Ahad mm-hmm. ne ko kaamilu Cheikh déedéet sëñ Amsatu dafa jël ñetti kaamil yëpp jébbandoo Cheikh Abdul Ahad euh, Cheikh Mouhamadou Moustapha ne ko lii la ma seew seen waajur wa santoon santoon santoon ci ñoom ndax daane ma li ma def ci walaa bëgg nga def ko ci ñoom ndeysaan ginnaaw gisatuma seen waajur wa nag ma xam ne yaa seen waajur moo tax mm. tey jii la seen kaamil ndeysaan bi mu leen jébalee bi mu jébalee kaamil yi ñoom ñett nag suñ Cheikh Mouhamadou Moustapha téye na leen tindoo di ab diir mm-hmm. ab diir téye na leen tindoo di mm-hmm. ci ginnaaw bi nag ci leen joxee Cheikh Mokhtar Dieng Goyar Mm-hmm. ci la leen joxe ngir mu jàngal leen ngir mu jàngal leen mabaayu mbooloo mi muy mm-hmm. xam-xam yi nga xam ne doomi mm-hmm. soxna mënu koo ñàkk lu mel ne risaala lu mel ne yeneen téere xam-xam yi ci des yëpp siraaju saalik ak yeneen téere ko jàngee dëgg la waaw ginnaaw bi mu jàngee nag ci Cheikh Muxtaar mbul kayel waaw mbul kayel la jëlee sëñ Abibu waaw ndeysaan indil leen ko ngir mu ngir nga xam ne diiru li des ci li dundam suñu soxna bu jàngiwut fenn xam-xam fu dul ci sëñ Abibu ci li mu xam lépp sëñ Abibu li mu xam ci sëñ Abibu la ko xamee ndeysaan waaye ginnaaw bi mu jógee ci sëñ Abibu nag sëñ Sohaybu bu dafa daal di des ci loxoy sëñ Mudu Mustafaa mm-hmm. dafa daal di des ci loxo si des ci loxoy sëñ Mudu Mustafaa mm-hmm. ba ci atum mm-hmm. ci la ci dëkk bi ñuy wax Mbaam Jégaan Mbaam Jégaan yàgg naa dëkk bu ñu xam la am na dëkk bu ñu fa nekk bu fa tudd bu tudd euh, Mbul Sayer Ndumbeel Sayer. Ndumbeel Sayer Ndumbeel Sayer. Ndumbeel Sayer waaw Ndumbeel Sayer yaakaar naa dëkk bu xaw a sëñ Saliou fa la am daara. waaw Ndumbeel Sayer waaw Ndumbeel Sayer googu. sëñ Sohaybu bu jaar na fa.

Ah, bukki barga daaru salaam bukki barga daa mi ngoog moom it dëkk bu siiw la foofa yi suñu son yi bu amoon na fa amoon na fa ay tool mm-hmm. naka noonu ci atum 1949 mm-hmm. ba tey am na dëkk bu ñuy wax Mbaraama Jóob Mbaraama Diop mhm. foofa it sëñ son bu amoon na mhm. fa ay tool moom it waaye ci atum 1954 nag ci la jëlee nag mhm. amoon na ba tey ay tool ci dëkk bii ñuy wax Touba Mouride Touba Mouride waaw si waaw ndeysaan Touba Mouride ñi nekkoon ko sëñ bu xam nañ ko xam nañ ko ndax <laughs> sëñ daanaka bari a a na bëgg tool la mhm. ñu ah, ñëpp xam mhm. na ko mhm. université ba foofa sëñ mi ngi ko mi ngi Mm-hmm. la ko gor tuddee ko ñànka mm-hmm. ah, déedéet mu tudd ñànka bi ci ginnaaw bi nag la ko tuddee turamu turu turu Madiana

fekk mm-hmm. ci ginnaaw bi bi mu ñëwee nag ci la dogu ni dootul génn ci Touba ndeysaan mm-hmm. ci la toogee ca daara ji nag di jàngale 1971 mm-hmm. nag bi mu goree daara ji nag daal di samp daara daal di koy jox Baye Serigne Gueye Niang Baye Serigne Gueye Niang nga xam ne wax nañ ne donga yi daan xaw a sax fa leen daan yóbbu am na ko ñuy wax it euh, Serigne Omar Seye sëñ Omar Sëy moom siiw na waaw moom it moom ba tey suñu soxay bu moo dëkkaloon na ko foofu ci wetam moom it mm-hmm. doon ko jàngale loo mm-hmm. yenn ci donga yi xaw a xaw a tëyit mm-hmm. mu fala fala fala leen yóbbu sëñ sëñ yaboo daara ji nga xam ne mooy daara sëñ soxay bu moom lan mooy histoire am ci 1946 yaa ngi wax ni sëñ soxay bu moo la ko ci la ko tàmbali ci sëñ Modou Moustapha gane génn gum génn àdduna fekk ko ca tool ya mu yéex koo yëg mhm. bi dikkee nag ci la dogg ci ni mhm. ndegam damay nekk ci barab ba doomi sëñ Tuubaa di génn àdduna tu ma di ko yéex yëg mhm. moom dëkk bi moom dootuma ko génnati fas naa yéenee toog ci dëkk bi te def la ma sañ ba digaloon muy jàngale alxuraan loo ciy dolli sëñ Soxna waaw xam nga histoire bii nag di këru euh, Daaru Naar daaru rahman sax la kër gi tudd daaru rahman waaw ndax waaye ma leeral ne kër gi it kër sëñ Tuubaa la woon mhm. waaye sëriñ bi dafa daan dalal naar yi mhm. looloo tax ñu tuddee ko daaru naar mhm. ci sanc bu njëkk ba ci sanc bu njëkk ba ci sanc bu njëkk ba waaye waaye daaru rahman mi ngo daaru rahman waaw waaye daaru rahman daaru rahman tudd kër gi nag li ci jotale sa histoire kër gi ak histoire daara ji kër gi da ci jotale sëñ Sohaybu Euh, xam nga sëñ Souhaïbou ak sëñ Abdoul Ahad ak sëñ Saliou mm-hmm. ñoom ñett ñi yàlla da leen a mas a boole ndeysaan ñett lañ ñoo xam ne mm-hmm. booy li masaan a gis ñoom ñett nga gis wala boo mm-hmm. gisee ñaar ña tuuti boo kee gis kenn ki gis kenn ki ndeysaan dawuñ a dem ba seeni taalibe la taalibe sëñ a a ñetti kër yooyu génn kilifa la jeex na ah, <laughs> genn njaboot lañ léegi kër gi nag Euh, li ci jotale sëñ Souhaïbou mm-hmm. ginnaaw bi mu doonee kër sëñ Touba mm-hmm. ndax dañoo wax ne sëñ Saliou fii mu dëkk këram gii mu dëkk ci jumaa ji kër sëñ mm-hmm. Abdoul Ahad la woon waaye sëñ Abdoul Ahad moo ko jox sëñ Saliou dëgg la kër gii nga xam ne mooy Daaru Naat di kër sëñ Abdou kër sëñ Touba gi ñu koy wax Daaru Rahman kër googu sax fa la sëñ Mour Moussa dale ak sëñ Fallou Fati sëñ Fallou fa lañ dalee fa lañ dalee alquran ci wetu ron gi ci wetu ron gi <laughs> barab ba léegi sax defal nañ ko xóorum ndeysaan mandargal nañ ko léegi fa Euh, sëñ Abdul Ahad bi mu demee ba soxla ko mhm. ndax sëriñ bi da koo dénkoon Cheikh Mouhamadou Lamine Gueye Firdawsi kër googu waaw kër googu Cheikh Mouhamadou Lamine Gueye Firdawsi moom la ko sëriñ bi dénkoon ku baax mhm, mhm. bi nga xamee ne nag sëñ Abdul Ahad soxla na ko bi mu ñëwee ci Cheikh Mouhamadou Lamine Gueye Firdawsi laaj ko kër gi waa ah, kër gi de sa sa waajuru baax moom ko dénkoon waaye nag fi mu nekk nii mi ngi sa loxoy mag ji sa mag ju tedd ji Cheikh Mouhamadou Moustapha ndeysaan ci la demee ci Cheikh Mouhamadou Moustapha laaj ko ko mu jox ko kër gi mu jox ko ko Cheikh Abdul Ahad looloo ci jotali kër gi moom moom kër gi ci ndigalul sëñ Modou Moustapha ci ginnaaw bi nag la jël jox suñu son yi mm-hmm. nga xam ne bi suñu soxna bu yoree kër gi mm-hmm. ñoom ñett ñi ñëpp ku masaan ñëw ci dëkk bi nga xam ne mm-hmm. suñu soxna boobu yor na kër gi lu yàgg ah, ah. Mm-hmm. même mu sampee daara ji it ñam fa njëkk a dalal ñeent ñi nga xam ne ñoom la njëkk a dalal mooy ku naan suñu aboom suñu abdul ahad ndax suñu abdul ahad suñu aboo amoon amoon na amoon na suñu amoon na suñu son abu amoon na suñu son abu a mm-hmm. mm-hmm. euh, abdul ahad bokkut ak suñu aboo mii waaw mi ngoog bokkut ak mii ah, waaw mm-hmm. ñoom la fa njëkk a dalal ak euh, suñu son abu moom suñu Cheikh Mouhamadou Moustapha Fall sëñ Soxay a Fall bu Fall mm-hmm. moom sëñ Mamadou Moussa Fall mm-hmm. waaw mooy mm-hmm. moom moom Cheikh moom la fa njëkk a dalal moom it ak sëñ sëñ sëñ Cheikh Naam sëñ Abibou sëñ Cheikh Naam sëñ Abibou ak yeneen kilifa yu bare bare bari waaye ñeent ñi daal ñoom la sëñ Soxay a dalal mooy ñi njëkk a dalal ci daara ji ci bi nag Mm-hmm. yëf yi yaatu ba doomi mm-hmm. soxna yëpp di kenn ku ne di seen doom nga xam ne njabootu suñ tubaa gi néew na nga tudd nga dugg genn kër mm-hmm. te te te te amul amul ku suñ soxna bu jàngal dañu wax ne sax boo duggoon ko sëñ Abdou Khadir moom taaw ba rek ngay génne muy sëñ Moodu wallaay ñëpp moo leen jàngal ñëpp moo leen jàngal li ko dalee ci sëñ Seex ngoog ba ci sëñ Seex Bas mi ngoog ba ci Abdou Khadir ngoog ba ci ba ci ba ci sëñ Seex Bas ngoog nga dugg sëñ Abdou ko sëñ Abdou Khadir moom sëñ Siidi rek ngay génne moom kay xam ne doy na sëkk ci ne rek boo ne sëñ Fallu sëñ Abdou Khadir sëñ soxna boo ko jàngal wallaay ndeysaan nga ne nga ne sëñ Abdou Khadir suñu soñ boo ko jàngal wallaay ndeysaan ak yeneen kilifa yu bare bare bare baarakallah baarakallah waaye nag bu mu sampee daara ji daara la woon daara la jo daara la woon joo xam ne daara ju nos la woon mu suñu soñ mm-hmm. ah, ndax moom njàngale mi kenn julli mm-hmm. mm-hmm. ginnaaw gee la fay julli ginnaaw gee la fay julli nga xam ne wax nañ ne bu bu jullee fajar bu ne bu waxtu bu waxtu julli jotee balaa mm. dugg ci jàkka ji mm. day rangale donga yi mm. kenn ku ne mu nodd loola nga nodd bu ñëpp noddee ba nopp mu maanaam gone yi nga xam ne dañoo xaw a néewi at mu rëddal leen aw rëdd ne leen taxaw leen nii nga xam ne ñoom ñu foofu la ñuy taxaw ci ginnaawam moom mu dugg ci jàkka ji jiite jiite bu pare it daal di dugg ci mbaar mi toog kon ko jàngale mi lool wax nañ na it maanaam euh, kenn daawu ko rombe loxoy neen mm-hmm. boo ko masaan romb moom wax nañ ne sax boo ko masaan romb maanaam faaw nga jéem a nga yor xalima wala nga jéem a yor alliwa nga duy satal ak nga yor alliwa wala nga yor téere wala nga yor nangam ndax boo ko rombee loxoy neen mu fittasu la mm-hmm. ne la ne la daal lay def dara daal lay def dara daal lay def dara waaye daal moom ku ku nosoon daara ji daara ji it bëri woon ay doomi soxna yu bëri yu fa jaar ay ay ay xalaaqaat ci ci mm-hmm. kilifa yi ndax bëri nañ ay kilifa yu ko faranseer si ndax suñu yaay di Touré. Mhm. Euh, moom Fass bu Fass Touré ndeysaan moom daana fa bëri lu mu fay ñëw. dégg naa la ndeysaan naka noonu it suñu Abdou da baax moom it bëri na lu mu fa daan ñëw. Mhm. wax nañu ne sama Abdou Aziz am na ci yoon woo xam ne sax da koo da koo da koo seereel ab aaya ne ko. Mhm. Euh, alladina in makkannahum fi l ardi aqamu salata wa ataw zakata wa amuru bil maaruf wa nahaw anil munkar ndeysaan walillahi aqibatul umur ne ko aay bii de na ma ne wóor na ma ba ko suñ borom di di di di wax ci nga bokk ndeysaan xam ne loolu sëñ Abdou Aziz moo ko moo ko seet a Abdou Aziz da baax maam Abdou Aziz naka noonu sëñ Abbas Sall bu Louga mm-hmm. moom it daana bari lu mu fay ñëw ndeysaan xam ne wax nañ ne sax sëñ Yaadi am na ci mm-hmm. eh, kilifa yi bu ñu masaana ñëw sëñ soxna mm-hmm. bu da leen doomi soxna yi ne leen kii mooy doomi sëñ Murtala kii mooy kii mooy doomi diw ak diw wax nañ ne am na ci yoon woo xam ne maanaam sëñ Yaadi bi mu ñëwee ba mu présenté leen ba noppi sëñ Yaadi dana leen ah yéen de baax ngeen di waajur a wallaay ah, ndeysaan yaa baax moo gën a yaa baax waaj ko wax loolu sëñ Hadi Touré sëñ Hadi Touré moo <laughs> ah. na waaye yaa baax a gën a jege gën a jege <laughs> yaa baax yi way jur ndeysaan waaye nag eh, xalaa xaadim amoon ak eh, ñi bokkal suñ tubaay it mm-hmm. moom daanaka daawuñ fa jógee wax nañ ne sax sëñ Abdou Khadir mm-hmm. ba moom moom ku ko yàgg ganesi la mm-hmm. sëñ Abdou Khadir wax nañ ne daanaka ko ganesi tindoo di wax nañ ne bu ko masaana ganesi suñ somé bu gerte la koy ganalee ca yooyee jamono gerte ndeysaan yooyee jamono uh-huh. waaye ba ci bi mu sancee daara ji it ñëpp dañ fa daan ñëw soxna may daw fa jóg mm-hmm. sëñ Abdou mm-hmm. Khadir noonu mm-hmm. eh, kii doomi sëñ Tuubaa yëpp noonu dégg naa waaye ku ci masaana ñëwit day jël caabi kër gi yëpp jox la nga xam ne diirub li nga fiy nekk yaay yore programme kër gi ba <laughs> yaay léppi kër gi baarakallah ah, nga xoolal Cheikh Mouhamadul Fadil mm-hmm. Cheikh Mouhamadul Fadil moom mm-hmm. dafa te ko co tegaloon sax ne ko bul jógati di seeti kenn ndeysaan ndax li li li sëñ mënta woon a nekkal boppam yaa ko ci eh, ci nekkal dañ noonu la ko toppe woon moom moom suñu bu topp Cheikh Mouhamadul Fadil mm-hmm. toppin wu rafet nag waaye sëñ bu am na solo lool baarakallah sëñ son bu ak liggéey bu réy bi nga xam ne liggéeyal na ko sëñ Tuubaa ci alxuraan nga xam ne ndénkaan li ko wéy juróom joxoon moom moo tax it liggéey moo tax euh, najaax bi mu ci am mm-hmm. maanaam réussir bi mu ci réussir. Mm-hmm. fi mu ne tey ñu mm-hmm. ëpp maanaam ay daara yu baree bare baree baree bare baree. daara yi suñu son bu la ñuy wax. ci lu waaye daa am ay daara yu baree bari yu juddoo ci daara yi suñu son yi ndax képp ko jàngee ca daara ja génn yor daara. sama classe gi ñun ñëpp suñuy daara ay daara yi suñu son yi bu la. la looloo tax tuyaabay suñu son yi bu. yàlla yàlla fay ko. amiin yàlla yàlla yaatal ko ci julli ñëpp ndax. Euh, yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa wax ne képp ku sos lu baax mhm. képp ku ca roy mhm. suñu borom dana ko fay-fay la wallaahi wallaahi képp ku ko ku sos lu baax mhm. ku ku la ca roy suñu borom dana la fay-fay ko ci lu wér kon te abay siñ soxay bu jooju moom loolu moom ñi ngi ñaan suñu borom yaatal ko ci kaw julli di yëpp waaye li ma yéem ci siñ soxay bu mooy fi mu bokk ak dayoo bi mu amoon ndax ca jamono bi muy doon doomi Sëñ Tuubaa nit ñi niñ xamee woon doomi Sëñ Tuubaa mhm. waaye way gi mu amoon mhm. ak maanaam nga xam ne digganteem ak boroomam mhm. waxtu wi mu war a jàngale kenn du ko ko seeti kilifa goo mën a doon soo dikkee dañ lay dalal cib saal nga xaar wallaahi wallaahi li feeg waxtu wàccam jotut hmm. doo ko gis ba ñi ko xamoon dëgg-dëgg dañoo programmé woon sëñ Abdou Khadir alxamis hmm. la ko daan seet alxamis ba alxamis hmm. ndax na ni gaaw dimanche altine talaata àllarba ku ci mën a ak soxla soo mën a indi nag maanaam way googu mu amoon ci diggam ak boromam nga xam ne li sëñ Murtada daan wax moom dalu ko mooy nit ñi dañuy dikk ne la sama digg ak sama borom yaa fi dox ba bëgg a far dox sa digg ak sa borom moom loolu dalu ko maanaam programme mu amoon ci li nga xam ne moom la ko sëñ Tuubaa digal mm-hmm. ak ku mën a ku mën a dikk mm-hmm. mënoo ko ko yàq moom moom li ko sëñ Tuubaa digaloon moom mi ngi ci mm-hmm. muy programme jàng boobu waaye it Mm-hmm. yemutoon ci yor ay danga ay donga di leen jàngal alquran mm-hmm. waaye xam-xamu diine mm-hmm. ba taalif na ci téere taalif na ci téere am na am na ci ñu bëree bëri ñoo xam ne téere Sëriñ Suhaybu bi lañ xam xamuñu sax ne téere bi Qurratul Ayni wallaahi wallaahi xamuñu sax ne téere bi bi muy arab tashilul manaafi' la tuddoon waaye téere Sëriñ Suhaybu nga xam ne njariñ la lu yaatu loo xam ne am na ci ñoo xam ne am na ci atte diine yoo xam ne bu ñu la koy wax dañ naa la téere Sëriñ bi nee na nangam te xamuñu ne téere Sëriñ Suhaybu bi ay atte diine maanaam ay téere mhm. maanaam ay hadis yu nit bi alayhi salaatu wasalaam mhm. njàngalim alquran mhm. ak sunna moom la suñu changement bu dajale léegi yaxal ko waaye am na ci ñoo xam ne xamuñu ci sax loolu waaye téere suñu changement bi rek lañu xam njariñ loolu noonu noo ko mën a expliquer xam naa rek la waaw waaw xam nga comme noonu nga ko waxee rek suñu changement bu taalif na téere yu bare bare waaye nag euh, xuratul ayn da cee gën a siiw da cee gën a siiw ndax xuratul ayn ni comme noonu nga ko waxee ba mu koy njëkk waaye ci arab tasxiilul manaafi la ko tuddee woon ci ginnaaw bi ci la ko tuddee wayaat tudde ko man moom laa tuddee sama daara tasxiilul manaafi <laughs> ngir barkeeloo a ci la ko ginnaaw bi ci la ko tuddee xulatul ayni mhm. xulatul ayni nag comme noonu rek téere la eh, xam ne eh. maanaam mbooleem lu doomu aadama di soxla ci dundam da ko faa dajale barakallah maanaam eh, doomu aadama bi fi muy fi muy ganee jamono mhm. ba fi muy doonee mu kàllaf kay fi ñu koy mayee soxna mi ngoog fi muy takkee soxna ba fi muy mujjee boromam lépp Sëriñ Souhaïbou da ko faa indi waaye toftal ca sax wàllu médecine wàllu médecine waaw ndeysaan mhm. waaw sa mhm. sa sa bët bu dee métti defal nangam defal nangam ba nee jëlal bi nekkal nangam defal nangam maanaam toftal ca ay njariñ yoo xam ne téere bu kiimaane kiimaane la damay wax sax damay wax sax ne fi ne ñi nga xam ne dañuy joxalee ay naafila ci weeru koor bi sax est ñoom ñu ci bari sax xamuñu ne naafila yi suñu son yi moo ko fay a a baax <laughs> ndax naafilaam yi dañuy gis ne eh. weeru koor bi rek eh. ñu bari bari moom la moom ci lañ moom koy joxe te ne waaw waaye loolu lu ma doon sant yàlla ndax suñu son yi looloo ko ci taxoon a jóg ngir mm-hmm. eh, ki nga xam ne jàng da koo xaw a jafe mm-hmm. mu jël li nga xam ne moom la téere yi indi way ko ci mm-hmm. olof toj ko bu baax a baax ba nga xam ne mm. Mm. ki mën a jàng olof képp képp moom bu xoolee xuratu a dan mm. dan ci mën a gis lum lum ah, ah, ah. dana mën a gis mën a am yàlla loolu rek la ci soñ suñu soñ bu jublu woon suñu soñ bi nag comme loolu ma la waxee taalif na téere yu bare bare xuratu ayni moo ci gën a siiw Mm-hmm. waaye am na téere bu ñuy wax usulu tasawuf nga xam ne ci wàllu tasawuf waaw wàllu tasawuf rek la ci mm-hmm. bu ñuy wax euh, buxyatul buxyatul muridin wa gunyatul mustarshidin boo biir suñu songi boo ko way naka noonu it am na téere it bu ñuy wax ba tey naylul awtaar moom it suñu songi boo ko way ak nuurul anwar téere yu bare bare bare waaye nit ñi moom xoolatuwaay lañ ci a xam <laughs> nga daa wolofee <laughs> jàppandi jàppandi xam naa ñu ci bari bari loolu tax mu gën ci si waaye way na mm-hmm. yeneen téere yu bare bare sax yu yooyu suñu soxna bi daal diiru ab moom ci xam-xam képp la ko def bëggoon borom xam-xam la nag mm-hmm. ndax fi ne wax nañ ne ñoom kilifa yi ma tuddal muy sëñ Abdou Aziz mm-hmm. ak sëñ Abba Sall bu Louga ak sëñ sëñ sëñ euh, Adi Touré uh-huh. buñ masaala ñëw suñu soxna bi day woo day woo borom xam-xam yi ku mel ne sëñ Abibu mm-hmm. da koy woo ak wax nañ ne Cheikh Mamadou Mbacke soxna bi mii daana ko woo mu ñëw toog nga xam ne day day bëgg nga fekke jotaay borom xam-xam yi am nga xam ne sëñ soxna bi ku xam-xam ñoroon la xam-xam na neexoon na ko lool yi wax dëgg yàlla waaye fonkoon yi di doon di doon Touba nga xam ne booba Touba moom booba dëkkin wi neexut mm-hmm. booba suñu soñ bu am na ci këram lu ñuy wax pharmacie boîte pharmacie boîte à pharmacie nga xam ne mm-hmm. wax nañ ne sax da daan def bu nawet bi jubloo nii mu jël hmm. donga yëpp dugal leen ci kees nga xam ne suñu maam Balla Bousso moom la moom la daan jox satal ak ndox hmm. yi kenn ku ci ne mu la jox la am nuwaakirin am nuwaakirin seexal la ndox nga naan hmm. ngir di di di di waajal di waajal nawet bi waaw xeeti xeeti jàngoro yi microbe yi xam ne ku la ci ginnaaw bi ci la jëlee anis moomu anis waaw ah, docteur anis waaw anis nga xam ne moom këñu soin bu ah, la biraan jàmbar rek fa lay yóbbu ndeysaan waaw constitution bi daal la ko hmm. nit la koo xam ne daal ku waajaloon lépp la dëgg la dëgg la am na solo baarakallaa xam naa ne li duuf ci nag wi daa xëjandowut ci cin li hmm. te waxtu wi xaw nañoo njatt hmm. waaye liñ bëggoon a jàllale rek li ci ëpp solo te ëpp solo mooy kan kan mooy sëñ Souhaïbou ci wàllu ay injaazatam mm-hmm. ndax xam nañ fi mu jàngee alxuraan mm-hmm. xam nañ it li mu sanc ci ay dëkk mm-hmm. ci ay dongay tarbiya waaye li mu liggéeyal yàlla ci wàllu alxuraan muy liggéeyam bu bi nga xam ne mooy daara ji teewutit sos ay daara ay daara duñ ne daara yi Serigne Souhaïbou waaye ay daara yi Serigne Souhaïbou mm-hmm. ndax fi mu ne ñànk googu moo ko sañc mm-hmm. Touba Mouride googu ngay tudd ak yeneen ak yeneen ak yeneen yeneen mm-hmm. daara yoo xam ne ci daara yi Serigne Souhaïbou lañ lañ juddoo ndax fi mu ne barab yi mu daan béyee fenn fu ci nekk amoon na daara te loolu li ko waral mooy liggéey bi nga xam ne liggéeyal na ko bëggoon na koo liggéeyal yàlla ci alxuraan sunu boroom sutural na ko ba mottali na mission xam naa dañuy tënk rek ndax euh, hmm. li ñu am ci waxtu dafa kii hmm. maanaam waxtu yi daf ñu wax xaw a xaw a xoj hmm. waaye euh, yan kàddu ngay mujjee ci dundu sëñ Souhaïbou bu kañ la génn àdduna euh, ak it ban soññee ngay def ci daara ji daara ji ndax kat damay wax ne ñun ñu jaar ke sëñ Souhaïbou war nañ koo delloo njukkal parce que it nit bu la defalee loo loo ko bu la lebalee bor boo ko mënta fay mhm. da ngay def loo am nga sànni ca mi mhm. ngi ziyaar bu baax si Ahmad Bàkki bi ak mbooleem njabootu Sëñ Sohaybu gépp Sëñ Hamza mhm. Sëñ Mahmoudan Bousso waaye damay wax ni daa kër Sëñ Sohaybu mbooleem koo xam ne jaar nga fa seeteewuma ci kenn nag mhm. kilifa gum mën a doon nag seeteewuma ci kenn mhm. ndax kat kum mën a doon it la la sëñ Chouaib defal mënuloo ko woon sa bopp te bu la ko sama way juru bopp mën a doon it doo dem ci sëñ Chouaib kon seeteewuma ci kenn nañ xam ne daara mhm. nañ ko delloo njukkal liñ koy delloo njukkal mooy kane daara la tax mu doon daara mooy day am ay jàngalekat am ay donga mooy suñuy donga nañ leen yóbbu kër sëñ Chouaib bu waaye nag ah nañ fexe mu am ay jàngalekat nag loolu moom sëñ Abou Madiane appel boobu maa ngi koy lancé seeteewuma ci kenn ki jàpp ne moo fa njëkk a dali ak ka fa mm. mujjee dali mm. ñëpp nañ xam ne daara ji mm. dañ koo war a taxaw ci lu wér ci wàllu nekkin waaye ci wàllu surtout ay jàngalekat surtout ay donga yu fay jàngee ci wàllu set wàllu mboolem lu jàpp ne war nañ koo taxawee ci daara ja ñu bàyyi ci xel loolu moom maa ngi woo ñëpp nag seetewu ci kenn nañ ci bàyyi xel mm-hmm. sëñ Abo Madiyana looy dolli ci loolu xam naa mm-hmm. mu ànd ak tàggoo bi rek su ko defee ñu daal di mm-hmm. waaw waaw li may doole ci loo loolu mooy bi nga laaj seen son bu kañ la génn àdduna sëñ a bu mi ngi génn àdduna 91. Euh, 1991. Mm-hmm. Mm-hmm. ci la wuy ji boromam. Mm-hmm. moom bi mu wuy ji borom it mi ngi wuy ji borom moom fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru koor mhm. wax nañu sax layetul xadri la tombeel mhm. mhm. lu njëkk la ndeysaan a yéeme ku ci da ngaa julli subak ajuma ko nangoo loolu kiimaa kiimaane a waaw kon si songe bi moom noonu la noonu la noonu la génne àdduna mm-hmm. li nga wax léegi nag ci lu aju ci daara ji it mm-hmm. liñ ci soññee rek mooy comme noonu nga ko waxee rek mm-hmm. ñun ñëpp rek ñu xam ne mënuñoo fay suñu soñ bu déedéet mënuñu koo fay walaay koo xam ne dafa ne mm-hmm. doy na sëkk rek nga dem ci mm-hmm. mbooloo ñu la yow foo jàngale nga ne ko suñu soñ bu nga ne ko suñu soñ bu te fayuñu dërëm ñun fayuñu fukki dërëm waaw mi ngoog fayuñu dara jeex fukki dërëm fayuñu fukki dërëm fayuñu ko ah, ah. nga xool fi ne warmal gi ñu lay warmal ak yëkkati gi ñu lay yëkkati ak jiital gi ñu lay jiital ak bàyyi xel gi ñu lay bàyyi xel loolu doy na sëkk dëgg la léegi nag mu des ci ñun ñi fa jaaroon nag nañ xam ne ñun rek ñoo ma ñoo war a taxaw daara ja dëgg la xëy na sax taxaw daara moom ñëpp la war waaye ñun ñi moom ñoo ci jiitu la dëgg la waaye kenn ku ci nekk jëlee génne boo ko taxawoo daara yëpp jag daara yëpp jag ji <laughs> soxla na ko taxawoo rek yëpp ah, yëpp jag daara ji yu bari ndax fa génne mi ngoog fu ne am nañu fa génne mm-hmm, mm-hmm. ci wàllu njàngale mi noonu nga ko waxee mm-hmm. wàllu sëñ nga xam ne ñooy jàngalekat ya fa nekk la ñuy soxla yooyu yëpp yooyu warul kenn ku dul ñun ñii fa loolu nag ñu ngi sant yàlla sax ndax am na taxawaay boo xam ne sax mbokk yi ñu ngi ko ciy taxaw mm-hmm. waaye nag taxawaay bu des ba léegi des na lool ndax suñu mm-hmm. ñëpp ñëpp ñëpp mm-hmm. xëjuñu ci kër xëjuñu ci daara kenn ku ci ne bu génne woon benn mille franc la te boo dee xool kokki ni fi mu la dëgg la ña fa jaaroon rek ko ko yóbbu foofu la dëgg la kon nag foofu moom dañ fi soññ waat suñu bopp di soññ ñëpp it ñu gën a góorgóorlu bu baax solo am na solo xam ne rek mënuñoo fay suñu soxay bu am na solo am euh, defee it foofu la ñuy suñu kàddu mhm. euh, di santaat bu baax nag Mhm. ci émission bi baarakallah euh, di sant bu baax yow suñu xarit suñu baara Mbàkke yow moom ñu yàgg lool ko ñu soñé bokk bokk ko jàngandoo bu baax di sant it suñu mhm. euh, moom it mhm. taxawaay bi mu am ci ñun bu ñu mënee moom sax moom ko daan jaawale dañ ko daan jaawale suñu nettali na am na ci boo xam ne daa ñëw ci mm-hmm. suñu soñ bu toog mm-hmm. euh, nee na euh, nee na suñu soñ bu bi muy jóg noonu ne ko ne ko Cheikh Mbacke am xam nga moom moom booba sama waajur la jaawaleeg suñu Cheikh say maanaam ñi xam ñi xam sama waajur dëgg-dëgg sax wax nañ ne mm-hmm. fii ne bu ñu masaan a ñëw ci ci ci kër gi kenn ku ci wut fa dugg ngir yaakaar ne suñu Cheikh say la ngir jàpp ne moom la ngir jaawale bu ñu daan jaawale ñoom ñaari ñu yàgg ànd ndax yàgg ànd nañ lu ànd nañ lu ëpp juróom fukki at mook mook mook suñu Cheikh Ahmadou Cheikh Ahmadou ndeysaan ndeysaan ànd waaye muy muy ànd bu yàgg yàgg barakallah kon ñu koy sant bu baax rafet na lool waaye rafet na lool rafet na lool sant it mboolem kuñ doon topp ci émission bii ñuy wax keppaaru mag ñi jërëjëf di sant mboolem waa réew mi TV di sant ñëpp rek di la di sàkku yi ñu ñaanal ba kilifa gi mm-hmm. alxaaji mbañik alxaaji mbañik borom doon li ko xéwal ndax kàddu yi ñuy jottali ci lislaam nit ñi man mm-hmm. koo jëriñoo mm-hmm. ci moom la ko yàlla jaarale liggéey bu rafet bi nga xam ne liggéeyal na ko lislaam ndax it nit yi yor na kër gu mel nii maanaam manis na faa def leneen mu am njëriñ mhm. waaye di fa tasaare lislaam it mhm. day day day tax mu am barke mhm. day tax it mu ñu gën ko bàyyi xel day tax it jullit ñi gis ci seen bopp waaye ngi koy sant bu baax rek moom alaaji ba ñu ko defee woon ca defee woon nañ ko ca rajo ba ndeysaan mi ngoog waaw fa leen ndeysaan waaw mi ngoog bii mooy ñaareel bi baarakallah koy wax ne ko nag lii du ñëpp ko man ndax ndimbalul yàlla la ndimbalul yàlla la ah, xam nga boo amee bu la yàlla yàlla maye wërsëg mm-hmm. nga delloowaat ko ci diine mm-hmm. delloowaat ko ci lu baax loolu ndimbalul yàlla ndimbalul yàlla du ñëpp ko man ndax nit bëgg na ko te suñu borom mayu ko tawfiix ji dëgg la ko kon dañ koy sant bu baax di ko ñaanal rek mbooleem lu mu ci lu mu fi yéene yàlla na ko mm-hmm. yàlla defal lu kawe njort amiin amiin teleem bi it yàlla na ko suñu borom boole ci télé yi gën a mag amiin dem ba jiitu ci mbooleem télé yi allahumma amiin koy sant bu baax di sant ñëpp di sant bokk yëpp baarakallah waaleykum salaam wa rahmatullah sëñ Abou Mariama Souhaïbou Cissé moom lañ àndaloon ci seen émission keppaaru mag ñi gis ngeen lii lañ leen andiloon mu doon njariñ kese mooy Serigne Souhaïbou bu lañ doon waxtaanee ak dundam borom xam-xam boobu nga xam ne liggéeyal na yàlla liggéey bu war a tax ñu di ko waxtaanee ndax boo doon biir dëkk boobee bu sell boobu ñuy wax tuubaa nga xam ne ginnaaw Ndakaaru mu ëpp popularité maanaam mu ëpp mbooloo mu fa dëkk mm. Touba ñaari kër yoo fëgg ba ko ñetteel da nga fa fekk dongab Serigne Souhaïbou mm. ko borom kër ga sëñ Souhaïbou boo ko jàngal wala mu mm. jàngal doomam wala mu jàngal ab sëtam kon kooku nga xam ne moo liggéeyal yàlla liggéey bu réy boobu noonu waaye yàllaa gi nag mm-hmm. nga xam ne boo dikkee moom ci seen moom ci boppam bi muy dund boo xoolee léppam mm-hmm. yàlla la ah, boo dikkee boo xoolee ay ko organisé mm-hmm. jàkkay boppam sax amut sooroor <laughs> ah. maanaam sëñ soxoy bu daal sëñ bi wallaay moo ma ci gën a moo tax yàlla nañ ko yàlla fayal yàlla nañu yàlla taas ci barkeem ab soññee la bu am solo boo xam ne képp koo xam ne kër sëñ soxoy mu nga jóge damay amul morom nga forte su ne sëñ Tuubaa amul morom hmm. fexeel ba ku la xool xam ne sëñ Tuubaa amul morom ke sëñ Suwaybu bu laa jàngee sëñ Suwaybu bu moom a yar hmm. ku la gis na gis ci yow jeexit ci sëñ Suwaybu bu loolu moom wax dëgg ah, yàlla gàcce la te kersa la yàlla nañ ci yàlla musal lii mooy doon seen émission keppaaru mag ñi seen mbokk sëñ Baara ngeen ci àndaloon mu doon amee amee fii ci seen télé réew mi TV ngeen di ko topp ci canal 108 waaye mën koo topp ci 97 point 5 muy am dimanche bu jot euh, lu jub yàlla la lu ci doomu aadama in uridu illa al islaaha mastataatu wa ma tawfiqi ila billah wa aleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh Ahmad Sulayman bi sarfi an أدل إذا ازداد قلبي أذن بهجتها ووجهت لي هدايا بالمبرات أمسدت طيب نفسي